waaw kay mbaay soxna Mbodia Mbaye ñëwaat na nag am nag lu muy leeralaat xale yu jigéen ñi leeralaat ndax duma ci jot ci laa dëkk ndax lan question yi mooy ñëw ñu may laaj ba tey may tontu di confirmer ba mu neex Mbodia wax lii waaw tata Mbodia man sama jëkkër man damaa tubaabe bëgg di def affaire tubaab def jonge tubaab waaye man daal gis naa ni carrément man man satisfaire ma sama borom ci biir néeg bi <laughs> nde olof Njaay nee ku wàccab ànd ànd boo dem fekk fa borom xale yu jigéen ñi jóge tubaab ba dong ku ñuul du benn bokkul eh xam nga ma leen di yëgal jóge tubaab spécial la am nga ne góor ni muy daaneel waaye ku ci ñam jonge sénégalais ma ci miim réew dóor jigéen doon sénégalais <laughs> laa ilaaha illallah doon sénégalais soxor lool soxor kele mën li ngay def eh yow nga ni ba fii yow nga di ku ni fi tegg li nga am dem ci tubaab bi leen roy ngoo jëg doxut ci yooyu jógee tubaab ba domine ku ñuul du ñu benn tànn ni ba tubaab domine la ah <laughs> wiitul nag toog ci seetu mere sa bopp fi jox sa loxo bi ne dur ko ci ëkk te xam ne dalu nga ginnaaw waay pourquoi ça qu'est-ce qui se passe man ma doon nit ku man doon sénégalais doon jigéenu sénégalais nga xam ne yaakaar naa ne Sénégal partout dans le monde ku ñu gën a jonge ci Sénégal amul ñun jigéen sénégalais ñun. nga ko fi ñu ko doy tubaab bi ay seeni ndigg ku nekk lay daaneel waaye góor xam nga lu koy kese moo koy daaneel. du kese moo koy daaneel du cuuraay kese moo koy daaneel xam nga lu ci bokk feeling part da cee ànd ak te Feeling Path ci Sénégal lañ ko xamee ay Mbodia Mbaye ay Mbodia Mbaye ay Mbodia Mbaye boo noppee fu ñu jëm musuma nopp waaju maa noppi barke Serigne Bamba yow jonge sénégalais gii neex ngay filaale ka sànne ku def la saf muy def effet ngay bajantu ba mu tubaab jii kal ko ci ay niwi sa tax ay seeni dëgg dëgg la waaye nag mën ngaa pël fenn fu gën a soxor seeni liggéey yépp day def effet waaye Feeling Pax da cee bokk caay-caay da cee bokk <laughs> xanaa xamoo leen ni yow mën ngaa tubaab rek def yëfi tubaab kii sa doon sénégalais di def yëfi sénégalais mais kenn amu ci Feeling bi yëngal góor moom nga manqué <laughs> loolu nga rate da nga gis ndeysaan ku jongo lool darkal waaye amul caay-caay day sol déguisement néeg mel ni mbërum làmp du jouer lenn takkaay dina bari lool waaye du xam nu ko utiliser amul cay cay gi nga gis koo xam tarkalla benn fer doo mën naa ne ci ndiggam lii mu def yëfu Sénégal rek am filim pax ci xoolin ci moom la jàkk rek di vivre di matt muy dagg fu ne mu dagg yaramam bi nga naan lan mu soxla la ci kaw lal bi xiif la tarkal la te xam ne lan Philippe Bac di nga nekk ak moo ko yee yow rangool ba doyal te yëngatu woo bouse woo amoo Philippe Bac soxoroo jënd jonge tubaab bi ba mu doy jënd jonge ni ku ñu ba mu doy te yaram bii circulé dara caay-caay foo jëm tojoo fenn gis nga boo dee nit ku ñuul da def yëfi nit ku ñuul jigéen day saf jigéen wala mu saf góor dangaa war a saf sàpp jigéen doon jigéen ak saf jigéen du ñu benn bu leen ñu andi benn problème waaye bëgguñu détail waaye tamit ñun soxlawuñu ay détails nañu waxante dëgg gi complexe gi la ñuy baax xale yu jigéen yi ba leen complexe geeg gi caay-caay ci biir néeg dafa baax ci jigéen na leen wax dëgg ku waxul lii wax la ca des tubaab beeg ba mu neex la xale yi jigéen tubaab yi xaaj bépp mënuñoo sëy man tubaab xamul ma neex ci moom ci sëyam comportement ñi mekaw laal <laughs> waaw barke Sëriñ ba lu ñu mën a encaissé ci góor ci kaw laal nit ku ñuul du ko fa xaar ñun na mënoo dëkk mbapat moom lu ci ëpp sama kalaas kii dañuy dëkk mbapat bi nga naan tey la mbooja mbaay di ñëw tey la may rey ngay jaagar jaagaree ko xaabar xaabar yi te boo tëddee nelaw tus doo ko fa tubaab nag bu dee kaw la muñ ci domine muñ ko dàq fuuf te gën koo ñeme te dàq bi yëpp kat ñeme de cee bokk ah te ñeme kaw la mooy sëy bi tubaab foofu la ñu dominer tubaab loola ma ci kaw la lañ ñeme ñoom tànkal la te góor di ko rii tambale di ko rii tambale ba ko góor kat sol sab sol caaya teg ca kalason teg ca eh, tubay ju gudd teg ca ànd lu leen di ko tegle ci tubayam ji ndax doon tubaab kooku tubaab ba koy liggéey tubaab bu jigéen moom foofu la dominer ni ku ñuul moom kaw la sëy yamuñu ceeg ñun yamuñu ceeg ñun allahu akbar boo jamaay kuy wax ak yow lii yow xanaa góor ñi jigéen ñi <laughs> maay saf li maf li saf jigéen ñi maf góor ñi góor ñi ma bëgg ma bëgg leen barkal la jigéen ñi daw di jooy di ma wut góor ñi daaw di jooy di ma wut si eh, ku ñu xalal yoon bu leer nañu doo ñaat tarkal la boo jamaay bu ma gesul jàkkaarloo ñuy wax ak yow ko poser ay question ñu lay poser ay question nga leen di poser di leen ko tontul maa ngi barke Serigne Touba man loolu rek ka man nekk sëyu tubaab nag mais du déguisement bu tubaab bi sol du dara lu tubaab bi sol man loolu yóbbu sama furi fara mais furu fara ga nag la koy yóbbu muy kawlal duñu loolu lañ defee dañuy tëgg mbappat mais kawlal lañ ñemewut kawlal bi moo des tubaab nag tarkal la foofu la ñu mënee te kawlal ba foofu la ñu mënee loo ko ci jox an encaissé ko waaye ñun de benn bi sax da koy demee wala nga ko de bëccëg ba dara doo ko fa réglé benn ba dara doo ko fa réglé salaamu yubri yëpp benn nga fay am wala du yegg wala bu yeggee nga pare ca fattu ji pour yow tëj nga dëkk bi tubaab nag tarkalla day nekk yow ci biir néeg bi nekk yow ci biir néeg bi nekk yow ci biir néeg ba nga naan allahu akbar tudd yàlla dax lan tubaab baa la koy jox ba ngay gàll loolu mooy sëyi tubaab moom foofu la foofu lañ ma neexee waaye ñun nii ñun de ñu ngi nii jonge tubaab ak jonge nit ku ñuul yëpp te jonge tubaab nag di ci a garaaw nit ku parce que sëy bi nga dul ñime yow ay topp tubaab tubaab liggéey ba li nga war a jox sa biir sa jëkkër ci biir néeg bi doo ko mën kenn du wax lii ngeen ni Boña Mbaye noppi Boña gi tëjuma sama gémmañ gi te jàngoro ji nekk ma ko wax maa koy wax xanaa gaañu ma faatoo tëdd de ndax du ma jot ci almere wax waaye xam naa tànk maa ngi dund di nooy Boña ni toog la ko waaye laaj mu tontu ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam maa ngi ku ragal du ko wax Boña Mbaye lay ragal yow tiituma lenn ki yori dàll ki saaga oto di capp-capp te yow dara koo ci engagé ci biir néeg mu daw xale yooyu semaine ba semaine la ñuy sëy xale yi jigéen yi ñuul yi di topp tubaab tubaab lu barki Sëriñ Bamba semaine ba semaine la ñuy sëy seeni jëkkër yaa ngi ci mbedd mi xaaj bépp di raasaat wala ay asim duñu kenn ku leen takk doo takk keneen duñu wujje loo leen jox mu doyal leen ñu lay calculer nag lundi ba lundi waat ngay sayaat ci biir néeg bi ci ponkalum góor mu ne léegi soxla boppam nga di ko limité lundi ba lundi bi dee si si non non j'aime a aw ma sax envie góor dañuy dem ñoom ba dañu amati envie ci kawlal bi seen sëyukaay mooy dee maanaam dootu dootuñu soxla góor xëy daw di tekki-tekki sol seen i talon di yéeg di wàcce leen di gën a ñor kaale ñu wax lii détaillé leen ci lii kaabaa ngii nag lii mooy kaa bi xale yi jigéen yi tubaab tubaab la barke Sëriñ Bamba mën boo jëmaay bale wax xaaj bépp seen i jëkkër bëggewuñu parce que xaaj bépp kawlal bi lañ lañ matalewut kawlal bi lañ matalewut sol nañuy talon ba seen i ba seen i di mitti taloo la di sol ba seeni ngaam di mitti bu ñu wàccee sangu nañ tëdd talu ñu la di la calculer rënd lañ sa yoon ba rënd bi deesiwaat nga bëgg nga bëgg a kal ko ci kal ko ci rënd yi rënd yi ba lu ba lëndee ba nga fa taw xooñ ba feebar dafa mitti nan lañ waxante dëgg ku ci yor nag jonge tubaab ba mën ko la ma ca neex man boo jë mooy ñi me kaw la moom mën nañ ko laaj moom tubaab tubaab moo ci dominé ku ñu mais bu dee caay-caay ak tarkal la rek Philippe Paye nit ku ñuul moo ci war a mën a gañe tubaab nag doog a ku ñuul doog tubaab du ñu gañ bokkuñ sax ay ay defe na kii ma nii pourquoi pas du ñu xam ne ay sénégalais dañu def yëfu sénégalais ñun def jonge moo ko pooj ba mu saf saf di bëgg suñu jëkkër yi waaye koo ci gis muy sii sii non non ko bala jëkkër tëdd nga nelaw di ko calculer rënd ba mu rëndiwaat ba mu topp fu ne mu sii ci fa nga bëgg a jël roy tubaab bi ñun ay sénégalais duñu ay tubaab lan leen waxante dëgg moo ja bàyyi nag a allah si ni neex a bëgg ndax xam nga lan sa dëggam mi dafa koy bokk a xasan ba ne xale jigéen ñi sëy leen dafa seen fontu gii say néeg la boo ca génnee ne dafa toog seen kër man maa la wax lii di xaar la ne man boo mbaay